borom bi fa mu ko jortu rek bu fekkee ne kon jortu nga ne ni nga waxee ci tawxiid te du dëgg te muy lu garaaw ci yàlla te dara amu ci aji texee di nga suñu borom toll la foofa te boobaa da ngay daal di texee di loolu moo taxoon saxaaba yi ak ñi xam yàlla dëgg ñëpp ragal alxuraan ba duñ ko fii bi nga xamee nag dem asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen nuyu baax leen siyaara leen ñaanal jàmm bi ñu sakku ci yéen tey ñaan suñu borom boole ñu ko dimbal a toofee kàttanal ñu ba sàmm te aar mu tënk ci lépp lu ñëw te bu baax a baax ci weeru màggal mi nga xamante ne ci leen jëm di ñaan suñu borom àdduloo ñu ci ci jàmm teewaloo ñu ko te defal ñu lu suñu ñëw te moo leen liggéey ci liggéeyam lépp rek ci barki loolu ginnaaw loolu nag ñu ngi tuub bu baax a baax. di am lu ñu jàllale rek loo xamante lu ndaw la waaw te mooy daal ñu fas yéene waxtaane ci wàllu lu jëm ci wàllu ñaan ndax dañoo seetlu boo xoolee jamono ñaankat ji bëri nañ lool waaw bëri nañ lool te ñaan bi dëgg bu koy wax bu njëkk da nga gis ne suñu mag ñi baax na te ñoom nekkoon ay nit ñu sell ñoo xamante ni ndox ci dara bay caaxaan duñ ndox ci dara bay ënd ba tax buñ ko masaane ñàkk suñu borom la suñu doom leen koy mais ñaan dafa dem ba ànd koo xam ne nit ñi seen ci bopp dañoo topp adduna dañoo jëlee ñu bëri jëm ci adduna jëm jëm ci adduna moo tax parce que nit ki bëree bëri maanaam problème yi ak gàllankoor yi bëri na di am looloo waral mais ak ñaan gën dëgg dëgg li ñu koy wax mooy koo xam ne il faut nga nekk nit ku sell di jaamu yàlla lu bëree bëree bëree bëri bëri di yàlla wu wér di ko wérul di jéem def lu set looloo tax lépp loo xam ne ñaan nga ko suñ borom nangul na ko ndax dafa bokk sàrti ñaan boo dee ñaan yow mi ni sëriñ bi yow mi nga xam ne yaay ñaan te nekk nit set wicc ci ci lépp loo xam ne dafa safaan nag nga moytani ko mais boo gisee léegi sëriñ bi dañuy jël alali jàmbur bi ko lekk hmm? te buñ la ñaanalee te nit ki ngay ñaanal moom boo koy ñaanal ah da ngaa war a dem ba ba ba ba ba ba mu gis résultat nga ne nga doo koo bàyyi mais benn ñaar ñett rek nga jox ko ñaari ñaari sangat ñetti sangat ñeenti sangat gisul la mu doon ñaan nga gis sëriñ bi si ñoom moom da koy dàq da koy dàq te du ko delloo xaalisam loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la nit moom bu ñëwee di ñaan ko na ko na nga ko jox ma sëkk ñaanal ko. topp ko nag topp ñaan bi ba keroog ñu gis résultat boo demee nag ba xam ne mënutoo mënutoo mënutoo koo mënutoo koo defal li mu bëgg ah nga ne ko wax dëgg yàlla kat jéem naa jéem waaye li la suñu borom toogal bu ko defee nga loo ko mën a delloo ci xaalis ba nga delloo ko ko nit moom noonu la ñuy defee dana nekk nga xaaree wax nag waaye képp ku fi ñëw di ñaan daañu la ñaaral ba nga ba nga gis tan danañ ne topp topp topp topp ba keroog ngay gis tan bu ñu demee ba xam ne yow mii lii ñu la ñaaral mënut ko sotti xëy na suñu borom moo dogal noonu xaalis ba mu joxoon lépp dañ la koy delloo nga dem seeti keneen mu ñàll la ndax bi ñu jël xaalis bu déggu gàllankoor ba nga nga démarré ak say métti ak say tawat ak euh, ñàkk xaalis loolu nga xam ne lu métti la kon nañ bàyyi xel bu baax a baax dañ bàyyi bu baax ñu ngi ñu nag dana nekk na naka yoo waaye dañ di moom dëgg moom da nga koy wax rek dañuy loolu mooy li am kon nañ gën a bàyyi xel ñaan bi di jéem a jéem a sàmmoon nekk ak suñu borom digganteeg ñi ak ñi nga xamante ne bii ñooy ñëw di ñaanal ñu jëm a sàmm àq ji bu baax a baax ba lépp loo xamante ne bii gàllankoor ak di yàq yàq diggante ko ñu wattane ko baax a baax waaw ñun moom dañ jëm ci wàllu ñaan te ñaan suñu borom moom ndax yàlla dafa wax dafa wax ne ñaan leen moom may leen kon jàmm bi ñëw ci yow di ñaan ko xëy na dafa xay na moom jëm boppam ak taqam wala ak maanaam ñàkk sellam ak wala maanaam ñàkk euh, jëm ci yàlla xëy na moo tax waaye moo tax mu ñëw ci yow mais ñaar moom ku ne mënal ko sa mën ngaa toog sa bopp ñaaral sa bopp suñu mais boo demee bu fekkee xam ne yow si xëy na bàkkaar yu bëri wala nga dem du xool bu sell boobu nga mbir mi ngi jaamu yàlla xool euh, maanaam di def dara lay jaaxal wa ñaaral ko suñu borom a mm-hmm. nga dem nga ñaanloo ko bu mu ñaanal la bu la ñaan ne suñu borom la buy ñaan gi ñaar bi mais nag kon dañ ci gën a bàyyi xel daal nañ gën a bàyyi xel dañ gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax insha allahu taala ñun moom li ñuy def moom lu sell kese la ñoom ñu dara loo xam ne lu ñu la boo gisee alquran bii la ñuy jëfandikoo ak ci turu yàlla yi ak fii ñaan moom la li ma ko li ko waxee rek maanaam ñaan nekkul ci yëre yi ñuy sol nekkul ci dëkkuwaay bi nekkul ci maanaam nekkul ci ci këyit yi lii du laa ñaan dëgg dëgg dañ ñaan asrar bu mooy asrar nit mooy asrar lan lan moo tax ñu nekk asrar nit hmm? ba lu mu bind wala lu mu jël jox ko nit mhm. nekkul ci la nekk loolu mat a bàyyi xel la bu defee ñu bàyyi xel baax a baax bu ko defee luñ ñaan rek suñu borom da koy daal nangu jéem a sellal mbir mi affaire bi sellal rek nekku nekku ci dara la gën a mën a jaamu la mën a sellal jaamu yàlla lu bëree bëri ñëw ci yàlla ñëpp bu la ñaan ne baax a ndax ñaan nañ moom lépp lu ñuy nekk mu nekk maanaam loo xam ne sell la du am benn ay jaaxaan wala benn loo xam yàq la duñ dox ci dara loo xamante ne nii luy yàq ay diggante la wala luy tàqale ay nit wala luy jaxase ay nit wala liggéey nit ñu dox wala liggéey yooyu yëpp duñu dox ñun daal ñu ngi dox ci loo xamante ne nii loo xamante ne nii yàlla gërëm na lu yàlla lu yàlla fomp ci loolu képp la ñuy dox daal loo xam jaaxal la tey ñun ci alxuraan kese la ñuy yëngu alxuraan la ñuy yëngu ndax alxuraan mën na jël ku fi jéggi alxuraan nag dem naan da ngay dem ci njabarkat yi xërëmkat yi da nga da nga da nga da nga faju de am la nga bëgg de mais xaaral xoolal xoolal la la ñuy fekkaat sa mujj sa mujj mujj bi ñaaw lay doon képp ñu fi daan gis ñu dund mu yor mu ay fitis ak i i ak i jabar pour deret xoolal mu jëm day mujj dootul nekk dara te ay feebar ak i metti ak i jaaxle ca lay nekkee ba keroog muy faat kon nañ ko waxtaane bu baax a baax te yem ci alxuraan def euh, suñu lépp rek muy alxuraan lii moom dañoo nekk dañoo waxoon ne dañ koy jàllale ndax dañoo dañoo daa nekk lu ñu loo xam ne si moom yàgg nañ koo métier bi moo tax ñu jàllale ko rek. loolu ñu doon wax moom dañ ko nekkoon loo xam ne lu ñu yàgg métti bi la bu defee waxuñ ko nag ngir xëcc ay nit ci ñun waxuñ ko ngir maanaam dara dañ ko wax rek ngir gën a bàyyi loo xel nit ñi rek ñu gën a bàyyi xel wàllu ñaan. Mhm. waaw xam naa nag ñun dañ jën ci wàllu ñaan. lépp loo xamante ne si tawat la ñu nit di tawat. waaw bu ñu bu ñu ko bu ñu woowee téléphone bu ñu ko diisee bu ñu ci mënee bu ñu ci bu ñu ci mënee saafara danañ ko wax ne mën ko saafara bu ñu ko saafara danañ ko wax ne mënuñ mu dem seeti keneen ñun moom noonu lañ dox fas yéene ñu lekk àq kenn jël xaalis jàpp roppi mu leer na lan ñi lim lay tawal nii mënoo ko saafara loolu mbokk yi fi nga xam ne ne loolu lu mat a bàyyi xel la te it bokkul daal dañ ko bàyyi xel bu baax a baax waaw ñun nag suñu wàllum ñaan moom seet moo ci jiitu boo ñëwee lépp loo mën a tabax bu mën a doon boo ñëwee daan nga seetal xool loolu lan moo ko waral ñu ne lii kat lii ko waral génneel sarax sàngam génneel sarax sàngam boo ko génnee incha allahu taala ñu ñaanal la bu ñu la ñaanal suñu borom gëm nañ ne lépp lu ñu la ñaanal suñu borom lañ teg la ci teg ndax fi ñu ko teg mooy maanaam il faut que rek nga mà a jubóog yàlla jéem a maanaam jaamu yàlla ba sa ba sa deret bi saf saf si saf si yàlla loolu da ngay am gëm-gëm ne yow loo ñaar suñu bopp da koy nangu loolu nag looloo tax rek waaw bu ko defee daal ñu ñu ñu xamee ko noonu boo ñëwee daañu la seetal lépp lu ci aajowoo seen daañu ne ko wax lépp loo xam ne si du la yàqal wala lu lay gàllankoor wala loo xamante ne si avenir luy nar a luy nar a ñëw ci am lan la amee ñu wax na ko ma def ci bàyyi xel fi nga toll bu fekkee de dafa am ay jafe-jafe yoo war a wattani wattani boo bu dee lu mooy yàlla wala du mën a doon luñ la bàyyiloo xel ñu bàyyiloo xel ndax jamono ji léegi daanaka man ngaa wax ne ñu bëree bëri li leen tëj mooy mooy yàlla. Mhm. kon mooy yàlla bu ñu ko wattaniku bu baax a baax a baax. di jéem a mhm. Mhm. a seetlal. bu ko defee bu ñu la seetalee ba noppi daañu la wax yoon bi ngay jaar ne la kat lii kat dëgg yàlla mën nañu koo saafara laaj la ah boo ñu ko may boo boo ñu ko joxee la ko bu ko defee buñ ci doxee nag dox ba dem ba gis ne yow sa yëg lii mënu mënut dañ wala yàlla moo nam lii mënut a dañ. daañu jël xaalis bi mu joxoon yëpp delloo la ko ne la kat demal nga xoole keneen boo xamante ne bii mu la mën a jaaral man wax dëgg yàlla loolu naa ji ñun moom noonu lañ joxe te it euh, incha allahu taala moom képp ku jël sa mbir fa doogu ci yow billahi alladi laa ilaha illa huwa gëm nañ ne yàlla dana dana faj aajo yooyu mm-hmm. loolu moom luñ gëm la li tax li tax ñu gëm ko mooy yàlla mooy ñaan leen may leen te ki nga xamante ne si moom moom ngay ñaan da ngay fexe ba xaritoog moom jubóog moom mm-hmm. di ko jaamu di julli di di di zigar. di laab di zigar di laab foo toll. lépp rek nga nekk ci da ngay lépp lu dugal sa loxo loolu bu sottiwul rek loolu kooku war naa war naa xool war naa xoolal lañ ko teg ba tax ne maanaam képp ku ñëw di ñaan incha allahu taala loolu jeex na loolu moom jeex na képp koo xam ne da ngaa rab yor nañ benn téere boo xamante ne bii buñ la ko joxee nga takk ko rab ba day tàq ci yow loolu moom amul benn mbir waaw incha allahu taala ndax rab day nekk ci jëmmi doomu aadama léegi bu fekkee dana jël ay sangat jox ko ko yow du sangoo ji rab bi da koy yàq day génn yàq boo ko joxee ne ko naanal rab bi day jëkkalu day jëkkalu li muy naan bu noppee mu jël ko seet mu tayam léegi nag boo jëlee benn téere boo xam bu ñu ko defaree ba jox ko ko takkee li fekk maanaam téere bi ngi nekk ci yow rab day day gérer day day da koy loolu mën na la ko misaal ci nit koo xamante ne dafa nekk benn bërëb boo ne dafa am lu fa nekk loo xam ne du la nga xam ne maanaam li li génn ci bërëb boobu day am jafe-jafe rab bi rab lay mel rab loolu nga xam ni saa boo ko takkee rek moom li fekk téere bi ngeen yow dindi ko incha allah taala du abal la waaw tax bu demee nga continuer takk déere bi muy dem gun dak bu demee xam nga day ñëwaat rab moom day léegi ñëwaat day leen ñëwaat bu demee ba gis ne yow sàggan nga ci wàllu ñaan sàggan nga ci sàggal sa bopp bu ko defee bii ñëwaat léegi nag téere boobu li fekk may yow bu dee dem bi ñëw bu dee bu yàggee day tàyyal bu tàyyee day day dem bu tàyyee day dem léegi nag waaw xam naa daal bu demee xam naa temps bi day gudd ay dañu bëgg a wax yëpp mënuñ di wax vidéo bi xanaa dañ xam ne daal képp koo ne am nga lu loolu ñetti ne yaa ngi koy jaaxal ba wala soxla lu mu a doon boo ñu woowee incha allahu daañu xool ba xam man nañ ci dara mu ci mënee dara wax bu ci mën dara ne la ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax nag wax ji lu ci dëng ñu xam ne ci mën mii ak doy di rek lu ci jub ñu xam ne yàlla suñu borom la ndax yàlla moo man moo am moo sañ moo def mooy dund kenn xamul dara kenn mënul dara yàlla képp a man yàlla képp a man yàlla moomu nag man nga xam ñu ngi koy ñaan mu jëmmaliñu ci maram boobu ak xamam boobu ba lépp loo xam ne dugal nañ suñu loxo mu saafara loolu te rafet nañ njort bu baax a baax baax ndax sell dañ ci def maanaam il faut ngay jéem a sell waaw il faut que ngay jéem a sell di sellal di sellal bu baax a baax waaw ci loolu daal ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay tënkoo ne loo dugal sa loxo yàlla suñu bopp dana dana dana ko sottal ñaan nit ki mooy ñaan nit jëmm nit du yëre yi du oto yi du du gesneer yi du dara nit ki la. te sañu neex sëriñ ci bëri léegi. du tur sëriñ ci bëri léegi daanaka boo dee xool la yàlla xam doy na daal la yàlla xam doy na boo gisee ñii njàngu li ñuy jàpp maanaam mën di gis. maanaam ñi jàppee seen bopp ay sëriñ ndax am na ñoo bi def ko. business loolu business xaalis te loolu da cee bëri te ñooñu boo leen joxee suñu xaalis yàq yàq seen yooyam ndax ñoom dañuy tënk ci. gis na gisuma gis na gisuma nga xam ne ñoom buñ la ñaan leen boo gisee bu gisul yëpp maanaam sa xaalis da nga koy ñàkk xanaa buñ xam ne koy ñàkk waaw rek ne nañ ko jàllale bu ko yàlla daal ñu gën ñu teg ci yoon gën ñu jubal te lépp loo xam ne bëgg nañ ci rek mu defal ñu jox tey defal nañ njort ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax ci kàddu yi lépp loo xam ne dëgg na ci rek ñu xam ne ci ñun la waaye lu jub ci yàlla suñu la yàlla na yàlla gën a taxaw gën ñoo sàmm gën ñoo aar ba képp koo xam ne am nga aajo indi ko fi suñu borom saafara loolu te képp koo xam ne am nga am nga aajo te boo fi ñëwee sa aajo dina rafet dina du faju yàlla suñu borom soppi la nga dem seeti keneen wa ma zalika ala llahi bi aziz ñu ngi jégal baax baax léegi nag xam naa bu bu dee wàllum képp koo xam ne bëgg na fi ñëw pour ñaanlu waaw waaw boo boo boo xoolee ci baaru écran bi numéro yi nga xamante moom lañ teg boo ci wootee incha allahu taala man ngay jot dara si doo jot keneen bu ko defee daañu la wuyu lépp loo xam ne looy sàkku la seet moom moo jiitu lépp moom daañu la seetal xool la bu ko defee lu ci war a kii ñu la ko rek incha allah taala bu ko defee ñu bàyyi ko xel bu dee dëkkuwaay bi moom ñu ngi dëkk Daaru Minam Daaru Minam lañ dëkk képp ku ñu bëgg a ñu bëgg fekk si rek boo ñu woowee incha allah taala daañu la wax fañ nekk si biir Daaru Minam boo fi ñëwee lépp loo xam ne loo nga ñëw tawat mu dara suñu borom dana ko saafara waaw ndax dañoo am yaqiin ci li ñuy def ngọn nhân không nhìn được đó có bị gì mà sai lầm sai lầm rồi chứ bên từng bên bên bên này tiếp cũng dua xin lỗi này đó là mong giang là ala kulli hal assalamu alaikum warahmatullah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen